location bi defar nañ ko il y a de cela un mois C'est lañ si liggéeyee ñun wa Sifa Group logé depuis parcelle Asseni en collaboration avec Solid SA logé depuis euh, Sacré-Cœur donc defar nañ ko il y a de cela un mois biñ ci xalaatee parce que daaw dund euh, euh euh, lu mel nonu dañu amone ben xalé bo xamantene ci dal bi ñu dafa réer donc si lañ né pourquoi pas ñu créer une solution bo xam da fay permettre xalé bu réer dal dee mëna a donc euh, biñ ko mettre en place si lañ ñëw proposer ko wa comité d'organisation, bu Magal de Touba biñ ko xolé à travers Seigne Ousmane Mbacké si la gis né c'est une très bonne idée après mu inclure que ci solution yi nga xamantene mo bok ci solution magal gi euh, dañu mettre en place ben application web bu bees du nom de Gis gis naa ko nag application bu bees la buy permettre euh, ñu retrouver bépp xale bu réer mbaa bépp pièce bu réer pièce nag boo ko déggee mooy pièce yi am photo carte d'identité passeport ak ay permis yu demee noonu donc euh, application application web la boo ci duggee par à travers www point gis naa ko point com dina permettre yow mi réer le da ngay dugal sa photo wala sa photo doom bi réer ak sa numéro téléphone yow mi nga xamantene ya for xale bu réer da ngay duggal photo xale bi réer ak sa numéro de téléphone parce que système bi c'est menu de reconnaissance faciale da fay correspondre ñaari photo yi nga xamantene ki réer la mom la duggal ak ki feñ la mom la duggal comme ça ki réer la dina jot message si téléphone am ki for tamit dina jot message si téléphone am ngir set bi gëna yomb ma sha allah. bépp xale bu ñu for tamit ci dal bu mu mënti nekk ci lieu bu mu mënti nekk ci Touba ñu mën ko ci enregistrer bu ko défé ki réer la ak ki feñ la dootu ñu amati distance. bo xolé léeg-léeg nga dugg ci kër goo xamante ne ki réer le njàngam du yem fenn fi mais boo seetloo léegi téléphone ñuy wax smartphone ñu bëri ñu ngi ko yor di ko utiliser maanaam bu nit réeree ci kër ñëppay am njàqare

dugal ko si biir plateforme bi dugal numéro téléphone pour permettre ki nga xamante ne moo réerle mën a jot message moom it mu jot message nekkat kat kii moo réerle ñu mën a def correspondance ba xale pour le moment boo duggee si biir application bi pour vérifier y a cent personnes boo xamante ne déclaré nañ ne seen ay doom wala seen carte d'identité dafa réer parce que perdu foofu boo duggee boo bu sa doom réeree mbaa sa carte d'identité réer benn la am na euh, cinquantaine de personnes boo xam ne déclaré nañ ne ñoom gis nañ soit ou wala carte d'identité donc on sait qu'avec le Magal, les yi fay bëri ñu pièce d'identité un permis un ak passeport yi dafay bëri yu donc xamna dinañ accéder à ce niveau bo xamantene inshallah logiciel bi dina une solution pour képp ko xamantene ce ce bagage fa réer ba sa da fa parce que logiciel bu une da fa am dimension nationale ak dimension sociale donc ñun on part avec les moyens du bord pour nañ ba mettre en place logiciel derrière il y a des charges ñu ngi gorgoles qui supporter mais n'empêche que am nañ ay partenaire yoo xam ne ñu ngi ñu siy jàppale boo xoolee application bi c'est gratuit kii dugal ne day seet du fay dara ki nga xam ne moo gis tamit war ko dugal foofu du fay dara donc dafa nekk loo xamante ne dafa social mais derrière am na benn système boo xam ne moom lañ mettre en place ci foo xam ne da fay mën a def don tey boo dugalee sa doom par exemple ne dafa réer mu feeñ sa xol mën na la may nga ne ah fii kat dinaa fi joxe dara pour dimbali ñi ñeneen ñi nga xam ne seen ay njaboot dafay réer ñu mën a feeñ